question ni que dafa am xam-xam wala leneen. Ah, mais fi mu toog. <laughs> renseignement yi la. yàlla renseignement yi la voilà état mënoo ko jiite te doo xam yenn yi. tout à fait donc xëy na man. atte bi ma ciy am ak yow atte bi nga ciy am dina méngoo du méngoo ak moom atte bi mu ciy am et li tax du méngoo ak atte bi mu ciy am xëy na day xam leneen lu ñu xamul mm-hmm. ba tax mu def mu bañ a def yenn yi bon loolu mooy en tant que président de la république en tant que euh, euh président suñu partie ak kii jiite mouvance bi mais am na beneen nit boobu. Mm-hmm. beneen nit boobu ba d'habitude du question lu ñuy nëbb boo ñëwee ne ko waa mais lii gis nga diw lii la def li diw lii la def man de dama koy wax de c'est pas trahir une une discussion mais li ci ëpp danaan la bàyyi naa kook yàlla. moom xëy na foofu la toll mais dinañ egg fenn foo xam ni nag wax dëgg yàlla umpul kenn ni que am na ñu war a liggéey ñu liggéeyul am na ñu war a défendre ñu défendrewul am na ñu war a def travail politique parce que tamit il faut ñu xam ne que ministère ministère kon kon ñu d'accord ci benn affaire. Mm, mm. mooy bu doon ci championnat la mais ci ñi njëkk a toog ngeen di bokk bu fekkente ni équipe de football la. Ah. nga xam ne yow ñi nga yóbbu ñi nga ñi nga sélectionné. Mm. football ñu benn action. mais kon ci non ci ci ci image rek la ñuy wax parce que loolu nga ma wax. kon mais mën ñu mënuñu xaar résultat ci yéen. non non xam nga. non mënuñu xaar résultat. waaw dama lay expliquer da nga jël football. waaye non. waaw non non benn uute rek moo leen fii entraîneur bi mën na xëy génn ah, équipe bi yëpp dugal beneen équipe mais kañ la koy def nan la koy defee ak fu mu koy defee d'accord euh, kilifteef googu moom d'accord d'accord léegi Mame Mbaye est-ce que moom président mérité wul loolu pourquoi mérité wu ko mooy dafa am ñoo xam dafa àndoon ak ñooma ah, dans la paire mhm. ñu mën ci limbu ku mel ni euh, ku mel ni Mbaye Ndiaye mën a wax ku mel ni Alioune Badara Cissé mën a wax euh, ku mel ni yow mii ku mën ku mel ni Abdoul mbaw ku mel ni ñeneen ak ñeneen mhm. ñu gis ni dañu dañu dañu xeexoon taxaw mais tey booy xool gouvernement bi mi ñooñ doo leen ci gis non te ñooñu ñooñu ñoo yoroon xeex bi ñoo yoroon lépp ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam mënu ma toog fax toog fii di leen ko wax. Papa Ngagne est-ce que mérité wul lii nga xam ne moom lay. dund ba yow nga remarqué ko sa bopp non non c'est que dafa ndax il faut pas que ñu indi amalgam ñi nga limloo ñooñu yëpp ñu ma am ci ñoom cër la parce que dañoo bokk xeex gënuñu maa xeex man parce que ñoo ma gën a xeex cest à bu fekkee ni que ba ñuy sànc parti bi la man mën naa waat ci alxuraan ni ci juróomi nit ñu ko sànc laa bokk ñu ci bari ci ñi nga lim dañ ma fa fekk ñii sax ñenn ñi maa jàpp seen loxo indi leen donc mu am ñuy dund ci ngor mu ñu lente ak sincérité ma jàpp ni que sax loolu moo tax yàlla suñu boroom jox ñu nguur gi ndaxte àndu dëgg lañ àndoon ku ci nekk di indi li nga mën moom tamit muy def kémtalaay kàttanam ci lim mënoon ñi ci ñi ci amoon ay jafe-jafe mu leen di jàppale ñi ci matul woon mu leen di jéem a mottali ci moom li mu mën ñu ànd dem uti nguur gi bi ñuy àndi uti nguur gi waxuñu woon ni que dañuy pàccoo yëf yi waxuñu woon ni que dañuy séddoo yëf yi. waxu waaw mais wax mais nag loolu nag lu nag lu nag bi ñuy ànd ah, ah. bi ñuy ànd dafa am Sénégal bu ñu gisoon. waaw man damay faral di wax ni que kenn présenté wu ma ko. moom recruté wu ma. Hmm. man maa ñëw këram fekk ko fa ma ni ko euh, euh, président bon pour wax dëgg rek te yàlla tax pour wax wax ji ni ma ko ni mu waxee grand boo dee sumb dara pour réew mi man ni ma la gisee man nangu naa engagé wu ak yow. am na ñu def noonu am na ñoo xam ne dañoo jóg dem démarché leen pour ñu ñëw ànd ci cause bi bi ñuy def loolu dafa am Sénégal bu ñu gisoon am Sénégal bu ñu doon dund. am Séné fu ñu bëgg a yóbbu Sénégal ku ci nekk mu laaj ñi ñi ci am xalaat joxe seen xalaat ñi am ñaar dërëm indi seen ñaar dërëm ñi am Pastef indi seen Pastef ñi am courage indi seen courage. ci noonu la ñu àndee. mais du woon ni que man premier gouvernement wu Macky Sall man bokkuma ci deuxième gouvernement wu Macky Sall man bokkuma ci nit ñi dañuy fàtte rek. yéen biñ mujjee Londres dafa am ku ñëw ni ma waa yow de suñu ministre de la jeunesse bi xaw ma lan Macky Sall yow la njëkk a nommé ministre de la jeunesse man ko déedéet. man avant man may nekk ministre de la jeunesse Ali Koto Ndiaye nekkoon na ministre. avant après Ali Koto du Mame Mbaye moo ñëw. ki ñëw Benoît Sambou la tudd man après laa ñëw après tey Pape Ndong après man Pape Ndong ñëw tey Néné Tall suba keneen lay doon c'est que ànd bi du warta nekk ànd par parlo ànd bi warta nekk ànd boo xam ni lu ñuy seddoo la bu fekkoon ni que ci engagement la rek bu fekkoon ni que ci nangoo ñeme dem xeexi la rek mais du ñoom du ma nii daj nañ lu nekk de mais ki ko jiite tamit daj na lu nekk ñun ñii nii tey man tey mënoon naa wax bu xëy na bu ma ko waxee ñun la non lañ la liñ la jox moo gën parti ci gouvernement bi mais wallahi azim buñ ma dugalul woon foofu sax xëy na tamit damay jàpp ni que jox nañ ma def naa li ma mën moom mi toog fi mu war a toog war a man a. li ngay wax ni nga baal ma mais gëm nga ko. bu ñu la joxuloon aussi. da ngay toog gëm nii ne. Euh, euh, c' est que du nga. damay laaj rek quoi vraiment ma mbay aussi nga bañ a nga bañ ñu sëlëm. xam nga bañ tey bu fekkonte ni tey joxuñu la dara. est ce que ah. toog rek nga ni non joxuñu ma dara doo xalaat par exemple ni nga ci raye sa bopp doo xalaat leneen ak ñeneen ñi nga xam ne jox nañu leen ko. te ñooñu defuñu ci woon dara. ba ñuy commencé. ay la ñi ci ëpp xaar xaar ma nga gis ay poste de responsabilité. li ngay nga toog nga mën ko muñ loolu yow xaar ma wax la bi li ngay wax nii mi ngi doon ëpp sens ci bi ñuy soog a commencé li ngay wax nii mi ngi doon ëpp sens ci bi ñuy soog a commencé parce que bi ñuy commencé président bi mu faloo man maa jiite woon ay ndawam man la woon ab Abdou Mbow Thérèse Abdou Mbow yor COJER Thérèse yor maire man ma nekk secrétaire général national bi bi ñuy fal gouvernement ñu ñett ñëpp kenn dugg ci Thérèse lañ nommé fële man fañ ma yóbbu woon président haute autorité mu bokkoon mu nekkoon man fi ma doon liggéey la ma doon am ba ñuy nekk opposition moo ëppoon salaire wu président haute autorité cest à cadre aviation bi ma nekkoon biir ADS salaire ba ma fa amoon mu ëppoon bi ñu ma nomee président haute autorité mas nga maa dégg ma wax musuma ko musoo ko dégg te xëy na sax boobu laa ëppoon taxawaay taxawaayu politique d'accord li may wax ni xel mën na ko nangu c'est mhm. pour revenir ci li ngay mhm. wax mhm. parce que wax ji man maa ngi gis wax ji fi mu jëm non fi ñu bëgg a yóbbu ñenn ñi fi bëgg a yóbbu wax ji waaw ñii la àndaloon wax ma kan ci ñi nga lim ñii ñëpp ku ci nekk ba muy door am na fenn fu mu la teg ñii ñëpp Mbaye Ndiaye nga njëkk a lim mbay Ndiaye moo njëkk nekk ministre de l'intérieur. pour ñaata weer. waaw ba non xam nga nag xam nga xam nga xam moo njëkk nekk moo njëkk a nekk loolu la ñuy wax aussi la déedéet tey defal euh, ndànk defal ndànk rek moox la c'est que yëf yi du parti gis nga borom xel yi la ñuy waxal yëf yi du du parti rek mais xam nga ni bu demee ba nekk débat rek. doy na waar non non bu demee su demee ba nekk débat rek. non xam nga doy na waar non non xam nga fii. su demee ba nekk débat. non papa ci ci salon yi génn dem feneen ak feneen. papa ngañ rek c'est autre chose. débat ba nit ñi mën a xool naan euh, Benoît Samb anamu Mor Ngom anamu diw anamu diw anamu mais loolu kenn gisatul kenn. nga dem ci nga dem ci conseil des ministres nga xool. dangaa bëgg mu leer ay lan nga fay gis. déedéet c'est que xam nga li ñuy wax naan man du man man du ma nangu ñu toog ñuy naatable tudd nga ñaari tur dama lay wax tey fan lañ nekk ñi ngi fenn am na fu mu leen nommé am na fu ñu ko féete mais bi ñuy commencé ñii nga lim nii ñëpp amoon nañ Mor ministre Mor Ngom jour bi ñu koy nommé man ak moom ñoo toog. di ñëpp yaa ngi leen di conjuguer au passé. waaw déedéet dafa ndànk. yaa ngi conjuguer au passé non conjuguer wu ma au passé ñëpp yaa ngi leen di. conjuguer au passé mais c'est que nañu bore. <laughs> c'est-à-dire man man man. waaw mais d'accord mais yaa ngi conjuguer au passé. non conjuguer wu ma au passé kon nañ dem. boo ma dégloo di nga comprendre li ma. waaw ah, d'accord maa ngi lay dégg ñii ñëpp. waaw bi ñuy soog a commencé. Uh-huh. Mor man ak moom ñoo bokkoon fu ñuy liggéeyee. ok xëy na moo ma mag. Mm-hmm. xëy na moo ma mag. ok ëpp moo ay diplôme. Mm-hmm. bi ñuy soog a commencé dañ ko nommé ministre des transports terrestres. Mm-hmm. des transports aériens boo jëloon ministère bi Karim Wade amoon. d'accord Mor Ngom moo ko remplacé post pour post ok ma moor gënu ma woon a xeex. Mhm. ñu nommé ko ministre. man ñu ne ma président autorité ci pourtant dàqu ma woon jàng. Mhm. ëpp ma woon engagement ma nangu topp ci ginnaaw d'accord ok tey. tey ministre conseiller personnel du président de la république la bu ko xeebal cër boobu donc amu ci kenn ku mën a wax ni que mhm. bi ñuy commencé mais ah, am na ñu ñu tegoon mais am na tey man ni ma nekkee woon membre du gouvernement pendant six mois pendant six ans du moins tey ma nekk jiite cabinet euh, président de la république mais suba mën naa nekki leneen. Mhm. d'accord mais yëf yi du loo xam ni. d'accord et puis mënta yem ci parti bi rek. ok d'accord d'accord on est obligé coalition benn lañ nekk. Eh. ñaar mënta yem rek ci coalition bi ñett sénégal yëpp dañ cee bokk même opposition bi ku ci mën dara dañ laa war a dem jëli indi la. noonu la ñuy téye réew. ma si man say man say plateau laay toog débattre naa fi fii ak nit. ñu wax wax wax ba pare ma nangu ni que kii li muy wax amal na njëriñ réew mi. ma ne ko man dey bu ma mënoon a dox sa diggante ak président nga ñëw parce que amal nga ñu njëriñ parce que naw naa la ci li ngay wax donte ànduñu. Mhm. mais nit da ngay dëggu. d'accord et problème mu réew mi la. Mhm. bu ñu ko yemalee ci parti après bëgg indi naan noo war na kii léegi li nga wax. daf ci am solo ñi nga xam ni bañuy xeex nekkuñu fi wala bañuy xeex ñi ngi woon ci leneen ñooñu ñoo war a am ngoru buñ leen bu leen woowee ni leen kaa leen ñu liggéeyee réew mi ñu bañ a am beneen xalaat ci ginnaaw. Mm-hmm. Mm-hmm. buñ ko defee rek goree dinañ. d'accord te ku ko ci def parce que wasànq wax naa la ko. bari na ci lu ciy am président xam na ko. Mm-hmm. bari na lu ñu ci ñi di def xam na ko. day toog noppi bu ci dara amee ñu beddi la génne la fële parce que ñuy tardé wala dañu bu say mbokk wax dañ la wor wala dañ la utiliser bu ñu fi waxate tamit naan ay technocrate ak ay loolu parce que loolu mooy escroquerie politique bi gën a rëy mhm. mooy ay affaire u technocrate dangay bokk ak nit classe mu jàng def cycle ingénieur ngeen bokk même classe ngeen def cycle ingénieur moom bu xëyee dem liggéey bu wàccee dem toog ci wetu jabaram jël ay doomam. yow nga dem politique yow nga dem politique. ñoom ñu wax ko technocrate yow. ñu wax la ñoom ñu eh. tuddee ko technocrate yow ñu bëgg la tuddee. politique politicien. Eh. te yow sa engagement ci njariñu réew mi la. donc bu ñu naxante li nga wax nag. man du ma nit kuy déglu ay débat ak mhm. ay discussion de salon parce que gëm naa ni ay ay débat ci ay ci ay ci ay télé rek la yam ak ci rajo ça ne reflète pas la réalité sénégalaise la réalité sénégalaise mooy li ñuy wax fii nii xëy na benn pàcc Dakar la ak lu ay nit yu toog seen salon waruñoo mën a wax pour impacter baykat bi. d'accord d'accord man noonu laa gisee. d'accord léegi Mame Mbaye euh,